Euh, Abdoulaye Néné Mané maa ngi lay nuyu Euh, maa ngi lay maa ngi lay fay Ndeye Comba. Abdoulaye Néné Mané nga nekk responsable national de la jeunesse membre euh, bu comité directeur membre également bu secrétariat exécutif national bu parti bokku gis-gis bu Pape Diop tey jii laaj bu njëkk bu ñu lay laaj naka nga gisee décision bi nga xamante ni Pape Diop jël na ko pour rejoindre la coalition Benno Bokk Yaakaar ci assemblée nationale. tout d'abord man damay euh, féliciter di gërëm le président Pape Diop pour le courage affirmé dont il a fait montre devant les Sénégalais dañoo toll ci jamono boo xam ni Sénégal pour nga jël jël yenn décision yi face à une pression ñu bëri dañuy xool pression bi nu muy wàccee seen kaw ba dañuy dellu gannaaw mais président Pape Diop mooy koo xam ni du pression du dara moo ko mën a yëngal te lu muy def du dara dara dara moo ko war a mën a jëlee semaine ñëw imposer ko ne ko li ngay def boo dem suivre conférence point de presse bi mu def dafa ne. Mhm. dafa toog une semaine ñuy xalaat boobu ñépp a ngi wax ku nekk ngi wax en tant que homme d'état dafa doon toog xaar. ba résultat définitif yi wàtt da lépp ñu boucler ba dañu xam ne maintenant les résultats sont effectifs mu door a prononcer sur ce sujet mais laataa loolu jot na ci waxtaan ak certains responsables yenn responsables yi ci parti bi ak membre coalition ñi mu àndal ci coalition bi mu toog xalaat ci mu soog a génn joxe position bi mu joxee position comme ñu ñu nekkee ci démocratie am na ñu ci ànd am na ñu ci àndul àddina nag noonu lay doxe ñëpp mënuñu far ànd ak yow da wax loo xam ni ñii duñ ci ànd ñeneen ñu ànd ci mais ak nu mu mënti demee lépp na nekk ci euh, euh, euh, lu rafet rek parce que Sénégal ñun ñoo ko bokk. kon nañu nangul nit ñi. Mhm. ñu am li liberté choisir fu ñu bëgg a jëm. parce que état de droit la ñu wax démocratie la ñu wax. démocratie mooy nit ki am na droit xool fu mu bëgg a féetee mu dem féetee foofa comme keneen nu mu amee droit xool fu mu féetee mu dem féetee fu mu féetee. mais est-ce que Pape Diop réellement consulté na leen yéen ñi ànd ak moom ci parti bi ak alliés yi nga xam ne parce que gis nañ ay euh, Alioune Sow ainsi de suite est-ce que consulté na leen réellement avant muy jël une telle décision pour rejoindre euh, Macky Sall. mais président Pape Diop bu ci consulté wu loon euh, ses alliés consulté wu ci yenn responsable yi mais salle bi doo salle salle bi doo ci gisoon kenn mais dañoo ñëw accompagner ko ànd ak moom parce que moom la ñu wóolu moom la ñu yaakaar xam nañu kan mooy président Pape Diop fréquenté nañ ko xam nañu lu muy njëriñ ci réew mi xam nañu cër bu mu am ci réew mi moo tax ñu dañu ko doyloo lépp loo xam ne dogal na ko même bu ñu consulter woon sax dañuy ànd ak moom parce que xam ñu lépp lu mu def pour njëriñu Sénégal la moom Pape Diop boppam rek taxu ko jóg bu doon boppam rek mën na toog am na lu muy dundee ay atee atee at moom ak njabootam mais Sénégal rek moo ko ñor loolu moo ko tax a jël décision. lan mooy condition yi parce que dégg nañ Pape Diop euh, ci déclaration euh, bi mu amal ak presse bi ne amul condition il a rejoint Macky Sall euh, maanaam d'une manière libérale maanaam d'une manière sans condition mais avant sax muy fësal bi les décisions ñu bari ñu ngi doon wax ni Pape Diop dañu ko dikk au conseil des collectivités territoriales wala sax dañu ko dikk mu daal di nekk président Assemblée nationale si jamais euh, mu daal di rejoindre la coalition benn Bokk Yaakaar. Ndeye Fatou yow journaliste nga te xam nga Sénégal mu tëddee ak réseaux sociaux yi yow si sa jëmm bopp yaa ko waxal président Pape Diop moom bu mu prononcé woo dafa ne dafa dem pour le Sénégal sans aucune condition mais bu ma waxalee boppam man lu ma ci dolli lan laa ci dolli foofu we mais waru fa am léegi nag keneen ku ci wax leneen mooy yaa ko wax ci sa coobare bopp président Pape Diop génn wax na ak sénégalais yi li mu wax ak sénégalais yi man li mu wax loolu laa jàpp te xam naa nit ki te loolu moo am te lu dëgg ci moom. fi toll nii ñu ngi leen di attaqué côté bu nekk ñëpp ñu ngi dal seen kaw muy société euh, bi muy opposition bi muy sénégalais yi euh, tey jii euh, lan ngay tontu ñi nga xamante ni ñooy les détracteurs de Pape Diop ak ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Pape Diop. gis nga euh, Ndeye Comba. Mhm. dama bugg sénégalais ñu tey bu baax man xam naa kan mooy président Pape Diop pour rappel avant 2012 amoon na société civile yu fi nekkoon je peux citer le cas de Latif Coulibaly je peux citer le cas de Abdoul Aziz Diop je peux citer le cas de Penda Mbow voilà toutes ces personnalités de la société civile yoo xam ne nekkoon nañu fi nga ñu nguur Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade bu ñu fi jógee ñu dem ànd ak nguuru Macky moo tax ma ne société civile mi nii ñun nañu tey ci société civile yi Latif Coulibaly toll woon na jamono boo xam ni ci journaliste lépp lu mu bindoon sénégalais yi dañuy gëmm ne lii moo am mais bu ñu demee ba ci biir dañu xam ni manipulation la manipulation boobu moo war a jeex ci réew mi président Pape Diop du koo xam ni ci réseaux sociaux yi wala ci ay wax day amee pression lay cédé ci pression du du kii ci pression président Pape Diop du kuy xëcc gëtoom ne ko par force fi nga war xoole loolu il faut nit ñi xam ko ci moom pour ñu mën a avancer ñaareel bi mooy ñuy wax nii am na loo xam ne waxoon nañ ko fi 2012 jox naa la fi kaawu Barthélemy Diaz fii la toog ne carrément ñun homme politique yi dañoo doy waar xamoon nañu ni que Abdoulaye Wade amoon na droit à un troisième mandat mais bi ma ko waxee kañ la ko wax des années plus tard bu ñu bu ñu ràññee. fukk juróom ñaari fukk juróom ñaari nit faatu ba pare des jeunes sénégalais yoo xam ni ñoom ñoo leen engagé woon ci ay naxaate ci ay sos ci lu amul ba sénégalais yi dem engagé un combat ba ay bakkan rocc mais tey la responsabilité de ces morts la mais san warul rester comme ça impuni parce que c'est une faute grave d'engager des jeunes sénégalais dans un mensonge ba ay bakkan di ci loolu c' est extrêmement grave ñaareel bi comme ni nga wax opposition nu ñuy attaqué parce que président Pape Diop amul fenn fu ko gars yi mën a jaar pour wax ko yaa fi waxoon lii wala yaa defoon lii loolu sama baat ca kaw mais par contre ñeen li ñuy wax Ousmane Sonko toog na fi ne carrément man du ma mës a ànd ak PDS du ma mës a ànd ak parti socialiste mais bu ñu nangalee Ousmane Sonko tey mu dem ànd ak parti démocratique sénégalais ànd ak parti socialiste. mais ñu mën a nangul exemple Pape Diop mu choisir son camp parce que nous sommes dans un état de un état de droit nous sommes dans une démocratie boo bëggee dara ñu respecter la yow sa choix da nga war a respecter choix keneen ki mais képp koo xam ni yow àndoo ak ñoom ñu xalab la yow yaay traître bi yow yaa bëggul Sénégal mais képp koo xam ni dëmb àndaloon ak ñoom même si tu es considéré comme un diable saa yoo xëyee dugg ci ñoom rek ñu setal la. mais toi tu es clean mosoo def dara mais loolu dafa war a jeex ci réew mi ba pare pensée unique maanaam ñun fu ñu xool rek lu ñëpp war a xool loolu gis nga bu ñu demee ci loola dictature la ñu yóbbee parce que keneen du am droit am wax ci réew mi te jàpp naa ni am na responsable yu bëri yu nekk ci langue politique bi tey dañoo toog parce que dañoo ragal wax. xale yi génn ci réseaux sociaux yi di leen saaga di leen yekk lu ci naka sudul noonu mais président Pape jot nag moom du koo xam ni bu dee njëriñ Sénégal dafa taxaw dana reculer face à ces menaces là du kuy du kuy dellu gannaaw ci ay xaste wala ay saaga parce que xam na boppam xam na ki mu doon xam na juddoom xam na lu mu defal Sénégal donc moo tax loolu yëngalu ko deux jotaar ñun rek lu ñuy wax mooy am na am ñu jox dëgg euh, Ousmane Sonko ne ba muy wax ni euh, benn parti ci opposition bi maanaam opposition bi pratiquement euh, ñu si bari Macky Sall la ñuy liggéeyal kon tey jii décision bi Pape Diop jël dafa daal di jox dëgg Sonko. waaw ma ne. Hmm. xam nga loolu moo njëkk a idée nga nekk en pleine campagne électorale nga toog ne képp ku voté yow waxal say programme. nga bay keneen ak programme mais képp ku votel votelul list yii wàllu ak yeewi jàppal ni Macky Sall nga sandil sa carte ba pare tey ñun bëgg Thierno Alassane Sall ñoo ñu bëgg Thierno Alassane wax ba pare ñu forcé ko ne dafa war a wax fan la far ne Pape Djibril Fall par force da nga war a wax fan nga far mais on est dans quel pays ñooñu ut seen caution dem battre campagne am lu ñu am ñu bëgg leen imposer dictature ne leen par force fi ngeen war a féete mais loolu ci ban dëkk la amee loolu noonu nag ça ne marchera pas avec le président Pape Diop d'accord nga Abdoulaye euh, Mané ci suppression au conseil des collectivités territoriales euh, gis nga temps yi dafa ak euh, actualité bi ñenn ci opposition bi ñenn ci société civile bi jàpp nañ ni dañ ko war a supprimer parce que institution bi amalul njëriñ askan wi xaalis bu bari dong lay yóbbu da nga d'accord ci supression bi waaw wala déet. pour cent dama ci ànd à parce que au conseil. man da léegi dama gisul ban jëriñ wala ñu wax ma ñu defal ma évaluation ba léegi gisuma benn évaluation bu ma defal ban la waa aw conseil ñëw def devant les sénégalais mais pendant suñu mandat lii ak lii ak lii ak lii njëriñ bii lañu indil Sénégal dama ko gisul lu dul budget boo xam ne ñoo ngi koy jël mu nekk budget boo xam ne mënoon na am njëriñ ci yeneen anam ci biir Sénégal. mais je ne vois pas l'intérêt vraiment de remettre en place le Haut Conseil des collectivités territoriales en toute franchise et en toute honnêteté organe boo xam ni institution boo xam ni comme sénégalais yépp ñu ngi ko jàppee institution bu budgétivore la donc yaakaar naa ni euh, le message est déjà passé président Macky gis na message bi war na xoolaat bu baax vraiment institution yoo xam ni amuñu njëriñ ci réew mi apporter lu ñu dara réew mi renforcer wu ñu démocratie indi benn proposition boo xam ne dafay jëm jëmale réew mi kanam donc je pense que institution boobu noonu n'a plus sa raison d'être xalaat bu sénégalais yi am xalaat boobu laa am ci ci ci ci ci loolu. actuellement sénégalais yu bari di xaar gouvernement bu bees di xaar sax ab premier ministre bu bees yow euh, tey jii lan ngay xaar ci ci gouvernement boobule en tant que euh, homme politique. waaw gouvernement lu may xaar ci gouvernement bi c'est comme tout gouvernement c'est-à-dire euh, ñoom ñu ñu dënk leen pour ñu doxal politique bu président de la république euh, on a besoin de ministres yoo xam ni euh, dañuy xam ni carrément Sénégal dañ fi war a nekkal on a besoin de ministres de la république ñoo xam ni ñoom république bi lañ fi toogal duñ fi nekkal Mademba wala Masamba ñëpp lañ fi nekkal te loolu pour mu mën a euh, gën a pour mu mën a nekk yaakaar naa ni luy gën a faciliter Macky pour que mu jeexal mandaawam mooy mu def un gouvernement d'union nationale un gouvernement d'union nationale boo xam ni dana impliquer doomu Sénégal yi yépp ci boor boo mënti féete ak foo mënti far bu dee am nga njëriñ boo xam ni mën na apporter Sénégal dara Macky Sall war na mën a waxtaan ak yow je pense que sénégalais yi euh, euh, ñëpp ñuy politique yaakaar naa ni ñëpp ay patriotes lañu képp koo xam ni Macky Sall soxal na la pour nga ñëw euh, nekk ci gouvernement bi même bu dee ci ku jéggi nga far yaakaar naa ni pour l'intérêt du Sénégal war nga mën a ñëw indi sa expertise pour la construction de ce pays donc équipe boo koy tabax du benn camp rek du benn camp il faut que nga impliquer ñëpp te lii lii firndeel par exemple. Euh, cette euh, euh, je ne dirais pas dualité tey am na benn équilibre boo xam ni opposition bi indi na ko ci réew mi donc loolu également war na mën a permettre au président Macky Sall mu xam ni que réew mi du benn camp rek la féete dafa am Sénégalais yépp ñoo ko bokk foo mënti far donc ñëpp la ñu war a boole ci yëf yi pour ñi mën a tabax Sénégal noonu laa gisee mbir mi. dernière question euh, Abdoulaye euh, Néné Mané ñu bëri jàpp nañ ni euh, Pape Diop ni mu fekkee ni président Macky Sall politiquement moom dee na tekkeetul dara ci arène politique bi comme rek ni ko sa Seck di dundee actuellement depuis mu fekki Macky Sall loo ci tontu. waaw xam nga moom laay wax nii gis nga loolu yëpp manipulation la cest dire dañuy dugal ci bopp nit ñi que donc encore une fois Pape Diop dafa dem jox Macky Sall majorité mais jëlul parti woon yóbbu ko ne dafay sey ci Benno Bokk Yaakaar non non non Bokk Gis Gis existe toujours ñoo ngi doxal ñoo ngi am suñu organisation mais tey Pape Diop ni mu président Pape Diop ni mu demee fekki euh, euh, euh, Macky Sall institution bu mënti am par exemple le Haut Conseil bi ngay wax nii bu dee sénégalais yi proposé nañu président Pape Diop pour mu nekk au conseil des collectivités locales c'est pour vous dire que le président Pape Diop n'est demandeur de quoi que ce soit laajul dara te loolu leeral na ko ci conférence de presse laajul dara dafa ñëw éviter Sénégal mu am blocage institutionnel blocage institutionnel boobu dana tax Sénégal yu baree bare baree baree dana tardé liggéey yi dana tardé lépp dana tardé daanaka. pour éviter loolu Sénégal pour loo xam ne desee na Macky Sall ci ma euh, euh, euh, ci ci bopp réew mi ñu mën ko accompagner mu génn honorablement yaakaar naa ni Pape condition yi noonu la posé mais en retour xaaru lenn lenn lenn ci président Macky Sall encore une fois Pape Diop du koo xam ne dafay def ay compromission politique du koo xam ne dafay lolu fenn laqatu laqatu fenn ak kenn di waxtaan ne ko man lii nga may jox wala lii nga may sëdd moom il n'est pas dans ça nit ñi ñoo nekk di xalaatee loolu sa carrière politique nag Pape Diop dafa nekk un homme d'affaires ba pare nekk soog a nekk un politique ñu xam ko ci koo xam ni dafay dafa am ay société muy liggéeyloo ay sénégalais moom bokkul ak homme politique yoo xam ne amuñu métier moom tey politique bu jeexoon fii tey Pape am na ay entreprise yoo xam ni da koy gérer donc c'est pas quelqu'un koo xam ne dafay gérer une carrière politique mais su ma defee décision bi su ma ko jëlee du ma mënaat bokk ci langue politique bi mais kooku moom yëngalu mi ngi lay jaajëfal. Eh, maa ngi eh, fàttali ne responsable national nge de la jeunesse membre euh, du comité directeur membre également bu secretariat exécutif national ci parti bile di bokk gis-gis.